amaana sabbal boo sabbal boo xam ne dafay far sa bakkaar walla mu jubal sa xol walla mu indil la wërsëg na nga takkoo ñaari baat yi subhaanallahi wa bihamdi subhaanallahi alazim